maanaam du gara non non amul fii fii amul ay booy yi loo def gang boo ko def police di ñëw eh, ñetti booy bu ñu doxee police ay taxaw fekk naa ba tàyyi police freiné te ñetti booy di leen benn samedi wala dimanche di leen laaj fan ngeen jëm fu ngeen jógee fu nangam téye leen foofu noonu booy taxaw di expliquer Sénégal booy gang lañ ay équipe lañ équipe nationale équipe nationale koñ bu nekk am na trente trente booy yu dox di tambambaalu di wëndaalu seen yaay dàq lañ ci kër yi génn leen ngeen fooy fan ban foowukaay loo jox génn leen ngeen fooy dem leen taxawaalu vadrouiller allez vadrouiller génn góor yi jigéen yi génn def gang góor yi génn def gang gang bi commencé nag gang bi ku nekk indi sa éducation muy éducation mbedd ñii réew ñii doon nañ caga ñii bordel ñii mun a fen ñii ñu yëpp ñu jàngee ko ci mbedd yi bu ñu sonnee ñoom ñëpp ñibbi si waat <laughs> parce que loolu boo ko xoolee xam ni ci ñun la yooyu yëpp lu ñu war a defar la fii doo gis xale mun naa génn fii laay ba jeexal tout Canada doo gis ay xale yi taxawaal koo ci gis saagam la yor wala velom wala di ñibbi mais eh, loolu lépp war nañ ko mën a organiser donc Sénégal par pauvreté sax mun nga organiser wu tubaab bi dina pauvre organisez-vous à ce que sincèrement si vous avez sax gens nga xam pauvre mais il organisé c'est-à-dire dans tout on peut s'organiser pauvreté euh, euh, riche riche euh, pauvreté le. il organiser C'est ci le peuple baña a xaar dara pour le pour pour pour pour ce pour ce pays man lolu moy sama philosophie avant de demander quoi que ce soit pour ton pays demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays avant de demander quoi que ce soit pour ton pays man je demande rien au Sénégal rien du tout au Sénégal xaaruluma ko dara man je me dis que mako wara war a defal yu may yéwo djéman a la point pour defal ko saa yu may yéwo na lan laa war a defal Sénégal laay wax lan laa war a defal Sénégal saa yu ma yeewoo te loolu mooy sama objectif man j'attends rien du tout rien du tout man bu ma gisee ay nit di xëccoo nii ma ne ay ay non man faluñu ma député man dugaluñ ma ci liste bi mais je me demande mais ban légitimité la am ba moom dugaluñ ko ci liste bi moom lan la def lu nit deful fii loo fi def am na ko def lu lu raw la nga def kon saa yoo bëggee ne dañ ma ci war a def xalaatal ko la ku la raw fuuf koo xam ne lu mu daj xaaj xaaj dajo ko nga wax ko lem ba mu ron toog waxuma sax ngay xool ci nit yi dee de déedéet dama ne boo xoolee sa bopp ba seetu sa bopp ba ne am naa doole sawar naa mun naa dóore mais gëmal gëmal ni boo génnee am ko la ñuus ngeen baal ma ci wax ci boo génnee rek am ko la ñuus ak noo entraîné entraîné ak noo jàng jàng jàng noo aay aay aay boo génnee dina am ko la mun a dóor donc ni ngay liggéey ci projet non, la la ci la sacrifier la ci ah légitimité non, buñ ma buñ ma ah de toute façon dama pour sama pays voilà waruma xaar lenn kenn man la gëm ci ay nañ ko non non non non non non buñ je suis un ambassadeur di Sénégal war naa def loo xam ne waruma gàcceel Sénégal waruñu ma jàppee fu ma sàcc ngir Sénégal euh, euh, euh, ma rus waruma nekk ci lu lu bon parce que lépp donc man ambassadeur drapeau Sénégal la fépp fu ma dem rek jàppal ni samp samp naa fa drapeau Sénégal ma doon représentant wu Sénégal ci xel ñu ne wow kii sénégal es ñu kontaan <laughs> ci xel ni ngay xalaatee ci ni ngay doxee ci say comportement yoo ki yaru na ki tey naa ki am na xelan ki set na ki nangam ki es quoi sénégalais ñu fier donc man dama je me dis que drapeau Sénégal laa man maay ambassade du Sénégal ambassade Sénégal le Sénégal ci jëfin ci waxin ci doxin ci taxawaay ci nekkin ci lépp sama jëmmal Sénégal la Sénégal donc fépp fu may dem rek Sénégal laa yóbbu waruma gàcceel Sénégal waruma suufeel Sénégal loolu laa gëm fukki dërëm bii bu daanoo fi sax waruma ko jël moomu ma ko ëllëg ñu jàpp ma ma ne non ñu ne sénégalais la donc lépp lu ma bëgg a def mu bon rek damay xalaat daa ah, ba représentant Sénégal laa de buñ ma fekkoon fii lan lañ may wax tey bu ma nangamee lan lañu wax buñ ma jàppoon fii lan lañ may wax bu ma nangamee ma ne ko ñukk foofu dem sama yoon kon sama conscience di wax ak man na ma eh, sénégalais nga de mais représentant wu Sénégal doo sénégalais simple nii représentant nga drapeau nga ni nekk loolu la war a def mais bu ay liste génne ñenn ñi di kaas anama comme si loo bokkul daal baaxul anama ana nga ana nga am nañu la raw fuuf léegi nag ñaar moo am kenn kii légitimité boobu mu am bokk ci parti politique bi di dem ay réunion lu ñu woote mu dem bu ñu ko waree cotiser mu cotiser bu ñu waree génn mu génn bu ñu waree marche mu marche buñu waré dajalé ay pancarte ay drapeau mu dajalé waaw koku bu taxawé ma taxaw man koku moma ma légitime bu féké nak ma ko gën ciw moma moo légitime man je me bats pour mon pays lui se bat pour son pays et pour son parti il a deux il se bat pour son pays comme man mais il se bat aussi pour son parti malgré que nit bo xam le ciwul mais il se bat pour son parti parce que vous partez me wootee réunion du dem mom il se sacrifie pour dem man moy wouti weccet partem di cotiser mu cotiser man du ma cotiser partem di dajale ay mbir di jënd ay banderole di jënd ay t-shirt di jënd ay blouson muy jënd man du ma jënd donc mais kooku la mu ca def la mu ca investir au moins politiquement am na lu mu investir au delà de l' aspect l' aspect patriotique mais mi ngi mi ngi contribuer ci partem di jënd carte mais kooku kan moo ko est ce que man war naa mën a gën a légitime nit boo xam ne bokk Pastef jënd carte di dem ay réunion di cotiser lu parte mu woote mi ngi fa di topp seen i loi seen i règlement kooku mënu ma ko gën a légitime quand même bu ma bëggee euh, lekk ci maafe bi damay takk ci ñeex mi bu fekkee da nga bëgg dëgg dëgg poste da nga dem takk ci ñeex mi parce que am na ñoo xam takk ci ñeex mi ñoom dañoo takk lépp ci ñeex mi mais balaa ngaa jël kenn bu dee dëgg rek kooku moom moo moo la gën a légitime moo la gën a légitime parce que partem ci bu dee partem mooy jël donc kenn warul mer parce que kii la ñu jël wala kee la ñu jël quand seen parti mooy jël ñoom seen parti la ñu jiital yow da xeex pour pour poste wala da ngay xeex pour sa askan da xeex pour sa nation man lu ma gëm mooy damay xeex pour sama nation bañ naa ko ba ma parti donc man xeexuma pour benn parti politique damay xeex pour sama nation tant que sama nation mi ngi fi maa ngi koy def ak amour sama xeex bi ak amour laa koy defee ak xol bu neex xeex xeex buy neex bu sama xol bi di sedd loolu rek moom moo tax bu mu tëddee damay nalaw ngaa yi sama gémmiñ di waay nekk ci septième ciel gis nga amour boobu noonu ku ko ñam ba xam amur boobu bu luñ la proposé nga bañ luñ la wax nga bañ parce que amour bobu dafa neex na équidistant taxaw di xol lu jaaru yoon ma wax fu sama askan soxla ma taxaw mais loolu lan mako dak bañ dugul la fenn teunk la fa ngay gis lu jaaru yoon di muñ wala nga dem ci télé di fen waw diko jema rafetal wala diko jema défendre nek hypocrite nek fenkat la lu ko fi jar man je préfère équidistant taxawé ne le porte drapeau de la vérité taxaw lu jaar yoon mu wax ak freedom au nom au nom au nom nation de ma patrie tout entière au nom de cette terre nourricière la maire des hommes muy Sénégal ñu war ko jiital ci lépp donc fii ku mer rek ku mer rek da nga ne parti yoon nga parti di yoon patriote waaw ah, fi patriote wala patriote voilà le nak lu fi nek moy focus sur l'essentiel li si nous ñu fexé ba Pastef am majorité garantie une majorité absolue bo xamni ne dañuy mën a voté ay projet de loi yoo xam ni dinañ mun a développer réew mi ku ci nekk war ngaa góor góorgóorlu ci sa liggéey ba am profession ba nga xam ni doo dem di xëccoo ji ay su souvent nag Sénégal dafa bëri ay chômeur chômeur yoo xam ne ñoom ñoom poste il faut ñu am poste parce que ay chômeur lañ amuñu liggéey mais am na ñoo xam ni ku ci am liggéey bu dëgër këcc liggéey bu lay may loo xam ne ñeewoo ministre mais kooku doo yeewu di xaar poste buñ la ko sax du la def mais chômeurs yi dañu bëri Sénégal quoi dañu bëri ba ku ci nekk politique pour am poste poste ci te kenn amu ci salaire un million buñ la falee dara sax ñuy calculer la am 1 deux deux oh non non non c'est pas normal parce que là parce que motax ñi nekk ñu jël leen fofu mais dañu sacrifié xamna y xam ni ne suba guddi ak ñoo doon bokk ben immeuble jour buñu gagné élection yi ba way def na appartement ko Sénégal ci mairie bi la fi mom gestion de projet la doon def il avait 6000 dollars 6000 dollars et quelques euh, euh, huit dollars du moins il avait 8000 dollars buñ ko fi jëlé Tout mu ñaat est-ce xam ngeen ni ñu kaaw ba nii ñu bañ man xam naa jigéen ab jigéen bu nekk Nations Unies bu Sonko ak Diomaye woo pour ñëw ci gouvernement ñu lànk ne bañ non non non baax jeex du xaaj grand boobu bokk na man bokk bokkoon naa ci ñu koy non demal rek demal demal mu ne ma jël mi ngi doog dem yàggul su ma mais booy yëpp ma nar ko fi bàyyi sama liggéey kër si kër gi sama oto bi dama ko war a jaay oto bi sa daa mujj ne ma kaama jaayal oto bi 4000 4000 dollars. bazar d'Europe des fois mu ne waa mais booy léegi man ma sacrifier lii dem Sénégal ñu nek ci li ne tay yi ñu dakk ma lu may def ah ne la ko rew mi jara. Tok na bay xalat loolu ba léegi tay tay, imagine toi ñu xëy dakk ma léegi je du doit recommencer ma vie à zéro ñëwaat fii di wutiwaat liggéey di dugalaat ay CV di nangam ak nangam donc dañuy xam ne lii sacri vrai sacrifice la ci kuy liggéey mais chômeur moom affaire yi moom kii la ko def ko quoi privilège la ko def affaire bi neex na dañ ko fal un chômeur chômeur moom bu ñu la falee moom seen waa kër dañuy tàcc di yuuxu man mii tey bu ñu ma faloon boo defoon naa sama papa na ma woo ne ma ah mbaa li ngay dugg wóor na ah li ngay dugg nii tey suba ñu la ci génnee nooy def nangam nangam parce que da day tiit danaan ah sama doom ji bu ñëwee fii day am naa problème parce que bu fi ñëwee bu bàyyee man dama yàqule bu te bu toogee fee nekk ci jàmm ma nekk fii sama jàmm bu liggéeyee dem yónnee fay lii fay lee fay lee nekk ci jàmm kon sa ñëw sax du ko arrangé buñ la falee sax moom mi ngi tiit mais bu dee Sénégal nga toog nag sonn buñ la falee say famille dañuy jubilé woo di commencé calculer deux millions cinq cent la nar am un million cinq cent nangam fekk loolu moom mooy trois mille dollars fekk loolu mooy deux mille cinq cent dollars boo xam ne waa ji da koy liggéey ci quinze jours beneen quinze jours mu liggéey deux mille cinq cent dollars am benn cinq mille dollars wala maximum nu mu torox torox minimum dina am quatre mille dollars minimum bu dee quinze dollars lay am de quinze dollars minimum te am quatre mille dollars ñu fay ko ab ministre Sénégal kon kay ku ñu woo Sénégal ne la ministre nga dëkk bi waa koñ ba di di tàcc Sénégal nga ne parce que mu liggéey bu am quatre mille dollars mais fii koo fi woo di ko fay quatre mille dollars mais da ko toroxal dafa ñëw rek parce que au dafa faut sacrifier le don de soi pour la patrie donc il faut nous ayons une idéologie quoi calcul qui Nous ma ñu nous a Nous ñu ñu woo ñu bañ Nous 40 40 la France bokkoon ci les premiers patriotes de de France un économiste avéré Quand parce que si demee une élection yo xamnu ne ci bureau di di di di des kii Pastef Pastef yu fundraising yu mu France mi ngi ci kanam ko tuddo turam ko xam mais ñaata lañ ko wo mu bañ mu ne ñaata lañ ko wo mu ne bu ko woowee ne ko mais yow do do Sénégal c'est pas structuré Sénégal. amul assurance quoi Sénégal c'est-à-dire bu sama jàng bi ma jàng nekk jaar ci université France yi naan lu ma daj ci àdduna ba doon li ma doon tey ma ne ko ñu ko sacrifié dem ci dëkk boo xam ni amul assurance amul garantie amul dara mel ni ku sóobu ci àll bu bu ma kii rek yàqu naa sama àdduna noonu na du ko def kon ñu ci bari bañ nañ donc poste yi ñuy jox gars yi ñuy tëppi tëppi yi kii gars yi non mérité wu ko euh, am na ñu ngi jox fee ñoo xam bëgguñu ko sax parce que coono la parce que galère la donc nit yi dañu war a dem wuti liggéey ba pare balaa ñëw politique wér bu jóg dem politique yi parce que da ngay wuti loo lekk nit da am profession dem liggéey nga xam ne bu buñ la woowee sax ci dara ngay hésité eh, bu ma bàyyee lii est-ce que lii lii gënul lii lii gënul lii mais nit chômeur chômeur foo ko day ñëw day jóg chômeur foo ko léegi nit yi dañu war a dem wuti liggéey Sénégal dañu war a dem wuti profession balaa ñoo wax waxu politique liggéey leen liggéey leen tey ci dara mu dëgër ngeen doyloo ko seen bopp ba nga xam ne bu ñu leen wooyee sax di ngeen hésité wala ngeen di xool lu pour et mu xool le pour et loolu moom mooy deux mooy kuy xeex ci ab post rek saa da am amagul lu dëgër loo jàpp mais boo amee ci lu dëgër loo jàpp doo xeex poste doo xeex poste waaw ku am carrière am salaire bu baax saa <laughs> bu ñu la waxee ab poste di nga xoolaat parce que poste post yi benn saxul ay poste bu ay post la mais ay post yoo xam ni décret moo la fay jële ah imagine toi ngay liggéey fii carrière ba dee am sa diplôme jàng am sa lépp lu ñuy laajte di liggéey nekk ñu woo la fële ñaari ñaari benn at ñu dàq la nooy def parce que ay ay décret la ah décret bu bind moo koy effacé waat décret bi mun na yeew rek xool keneen ne eh, appelé à d'autres fonctions nga jommi nag jaaxle war a recommencer waat à zéro yàq sa lépp stabilité ba nga amoon lépp la tout kon lii suicide individuel la lii loolu bàyyi li nga def dem foofu suicide individuel la vrai suicide la donc ku ci nekk booy bu ñu la joxee dara nga xam ne lii pour peuple bi la moo tax ñu jox la ko pour nation bi la du pour noos du pour dund du pour happy bés bu ñu commencé xam degré wu li ñu leen jox mais kuñ ci sas da ngay sonn kuñ ci sas da tiit voilà te loolu moom mooy dëgg léegi nag concentré wu sur l' dafa am solo mooy ngeen focus ci seen bopp focus ci liggéey bi focus ci jëmale Sénégal kanam te bàyyi détail parce que ñiy wax moom kenn mënu leen teree wax parce que ñoom moom la dundee ñoom moom la ñuy dundee ñoom moom moom opposition wax lay dundee opposition du dundee jëf parce que mënul jëf déjà parce que ñun suñu opposition du ñu jëf wax lay dundee amoo lu génn te du ñuy xool nu ñu ko critiquer malgré même bu amul critique lu ko def nii def conférence wax économie fu mu toll wax dérive financière yeeg et cetera et mais am na France benn français amul jot nekk fanaan ah yaa wax lii non bu ko wax lii non nangam non non waru ko génne nangam ndax mais am na France am na Canada te siwul am na France am ah. ki ñëw nii wax na atal ay chiffres yu mu yu ay nii lu mu def nangam mu ngi France mais benn france ne fa toog nii def ko ci internet bii di ko noo ko sante di ko roog ko sante ah yaa ko wax doo ay seen seen opposition bi génn ñoom teg conférence de presse yor wax ji non waru génne chiffres parce que day tax banque mondiale daw day tax FMI daw FMI ak banque mondiale ay fen la daw duñu daw du <laughs> dëgg FMI ak banque mondiale ñu ne am ñoo xam nee nañ taxaw jàkkaarloo dix huit millions de sénégalais ne Sonko ko Diomaye dañoo waroon nëbb affaire bi nëbbal fen yi nëbbal fen yi quoi ay nit jaar fi def ay malversation financière def ay dérive autoritaire def ay ay ay ay doon ay délinquant wala def ay ay bavure policière wala ay bavure financière bavure euh, financière ay bavure euh, économique et cetera am ñu ne ñoom nañ ñoom nañ ko nëbb na ko Sonko Diomaye nëbb quoi pour nax kii ñenn ñi ñëw ne non c'est-à-dire chiffre yi mënul nekk euh, nangam nangam. li mënul nek té kenn nak indexé wuñ ko ci ki mi ngi tuddu bugan ké mi ngi tuddu pap jibril ké mi ngi tuddu te kenn ci wu leen kii daf ne Amadou Ba wala ñom mo tuddu Amadou Ba mom indexé Amadou Ba yow sa gérance fi di nga fi wax da nga falsifier ay chiffre da nga fen Sénégalais yow Amadou Ba Amadou Ba am papa am yaay bugan ñew bu ko doon ñu Amadou Ba. non boo ko gis chiffre yi mënul nekk non général de mënul nekk mais sa waay est ce que yaa tudd Amadou Ba est ce que sa baay daf laa jur tuddee la Amadou Ba keneen kër ñëw taxawee que yow yaa euh, Ba Moustapha Ba bàyyi tuddee ko Moustapha Ba ñu ne ko yow Moustapha Ba Modou la jóge fee ñëw ne ne non c'est pas normal mënul nekk wala mu nëbb ko doon Yérim te Yérim Seck keet lu Moustapha Ba waa ji ne Moustapha Ba Yérim Seck ñëw moom moom bu ko doon Moustapha Ba <laughs> mel ni ñoo xam dañoo xeeb sax seen njuré lu bàyyi parce que loolu vraiment nit indexé nit nga ñëw bàyyi waa ji war a mun a tontu am gémmiñam gën la nday ba yow nga ñëw ne da nga koy tontul quoi yow nga ne da koy tontu dëkk yëpp am transparence ci lépp Sénégal ñu ne am ay nit yu taxaw ay mag magum jëmm yu sax yi bijaaw naan danga nga war a fenn chiffre bi gars yi dañ ko sàcc dañ ko falsifié mais yow da war a fenn danga ko war a fenn quoi pour ñu sañuy intérêt ñoo day dëmm lañ dëgg man day wax dëgg bañ a lekk ma a fenn lekk je préfère di teewal dëgg ci dee ci que di suur ci ay fen di dund ci ay fenn yi may jour non non man préféré wu ma loolu donc ñom loolu lañ wax quoi né nañu sonku neub mbiri bu mu gawal transparence même loolu bu amé sax nako neub <laughs> non xamuñu ni tubaab bi ils sont pas comme ça do tubaab bi bu day toka papa papa am di ferme ah papa arrête tu mens amna sama cousin bo xamni ni toba bla métis la ya am tubaab bla papa sama nijaay do France màggee France yaroo France ñeu vacances Sénégal ñu tok ci eut bi di waxtaan papa ji tok di expliquer waaw ah, boy bi nako papa arrête arrête tu mens c'est pas vrai ñu hmm hmm <laughs> mais papa da doon tok di papa da doon fen ko euh, mako papa bi rak papa bi euh, sama nijaay bi nag non mais non arrête mu mais il ment di insiste non mais il a menti il a menti <laughs> ma wokk nijaay ji na ko tonse bi na ko wuy ma bul bul bul gën a yokk gàcce gi bul gën a yokk gàcce gi parce que boo yi yéen seen yéen di def nii ay di nëbbanteeg di sóob ñu xamuñu yooyu ñoom dañu lay yar ci dëgg fen fen la makay fen wala paay fen wala bàjjanay fen wala tanta fen fen la voilà ñu xale warul seetaan mag gi di fen nii mu toog di ko xool quoi parce que lan te ko mag parce que lan muy muy muy utiliser âge am di fen c'est pas normal mun na am milan di fen nga arrête tu mens bàyyi fen Amadou Ba dem sàcc sàcc ay chiffres fen Sonko ne day fen na war wax day fen de da war ko wax day fen war ko <laughs> bi moo hypocrite moo tax dëkk bu hypocrite avancé noo non Sonko warul wax day fen Macky Sall waru ko wax day fen parce que moo ko mag war tan nga naan loolu mooy hypocrisie nag moo tax yàlla nekku fa boo leen xoolee dëkk boo xam ni vendredi dañuy julli ñëpp fees dell dëkk ba dëkk bi di torox ñuy julli muy torox ñuy wirdi muy torox ñuy gaa yi dellu ginnaaw dëkk bi dellu ginnaaw ne taat daraam baaxut kon am na leneen problème bi du julli du jàpp du kon am na leneen lu fa nekkul leneen lu fa nekkul te gars yi lijjanti wuñ ko di julli di torox rek di julli di woor di torox di natt asaka di torox di wirdu di torox naan laay la yor yor baat yàlla yëpp laa la illallah la Nihmal wakil lay la hawla la quwwata di torox takki nomba di torox di wasaara di torox di ñak bi bëgg dé yoro tous tus mais nga mais xaw nga wara taxaw def rek prospection amna lenen le problème est ailleurs parce que bu waxante deug fen gi la té fen atrocité la <laughs> té sénégalais fen eka ndox ndox boy na kula daku juli julli la fen mais sa way tamit ya problème jullikat bi sax ay pare rek ñëw fen fen ñu tàng jër mais kooku du dem mukk parce que lu mu liggéey fii bu gasee fii da koy suul ñun am problème mu fen ba pare kenn ragal a wax kenn da ngay fen dañuy nekk di fen ñoom nag loolu la ñu wax booy bi di insister bu ñu jaay jëlaat non non non non arrête mu naan ko non mais il ment il ment papa ji naw fa naan non ne me dis pas ça <laughs> déedéet papa na France am fa jabar ba am fay doom. non def def ne frère am bi petit frère am non bàyyi laisse tomber non ba pare di werante ak doom ci non non mais sérieux sérieux mu ne ko mais papa tu mens ba wax ja jeex sénégalais bi nga xam ne nag moom mooy mooy mooy frère nijaay bi mooy frère bi ko mi ngi mer papaam bu ndaw bi mi ngi mer non war ko sax sama frère la non <laughs> sa frère la mais papaam la sa frère la ok mais papaam la moom papaam daa fen te moom ak papaam dañoo am ay langage de vérité bu papaam fenee bu fekkee papaam France la nekk du fen ñëw Sénégal di fen bu ko fekkee Sénégal daan ko bàyyi fen bu France bàyyi fen Sénégal bàyyi fen da fen te loolu ma dëgg bés bu commencé woon naan bàyyi fen rek léegi mag yi noppi mag yi fenkat yi la ñu noppi mais gars yi dañ leen di suturaal te xamuñ dañ leen suturaal dañuy wër di fen rek di fen bu bugaan génnee fen rek yérim bu génnee fen rek ma jambal bu génnee fen rek ba pare nak di protéger sen bop na non nañ bàyyi wax ki nit day fen no waru ko wax day fen no mais da nga fen tu ma ya a rien d'autre tu ma da fen dëgg moom transparence buñ la joxee ben gérance nga koy gérer bo ñëwé da ngay def état des lieux da ngay def état des lieux bo paree état des lieux nak après nga tàmbalee liggéey motax langage de vérité bu Ousmane Sonko def ak Jomaay motax banque mondiale ak FMI ne len contane nañ trop ci li ngeen def li woné na ay tank yu woné ni da ngeen jog pour defar da ngeen jog pour transparence ñun tal na leen loxo dinañ len jappalé Sénégal yépp tàccu motax tax ñu noppé gatché lañ am gatché parce que ñoom dañoo ni deug mais dë fan la fen di am ben deug deug ñak fa la lay poser question fan la fen di gañe benn dëgg ñàkk dëgg tumurante musul am yàlla yàlla nee na moom mu ànd ak dëgg yàlla nee dëgg kàddoom la fen di dund dëgg ñàkk amul lu la fen benn fen may fen bu la mayee benn dëgg may la fukk mun na yeex a ñëw nag lu fen fen teel xëy dëgg biddanti weesu ko balaa ngoon dëgg du moroomu fen fu mu ko fekk suul ko dëgg jant la kenn mënu ko suul kenn mënu ko fàtt te tubaab bi loolu lañ gëm transparence vérité jub et cetera yi loolu lañ gëm parce que seen éducation loolu la da wax ak ñoom sax di sëgg man dama wax na di sëgg nii tubaab non non sigil xool ma sigil xool man ah, ah dama am kersa non non non fii booy booy wax ak tubaab nii di di di sëgg dañ naan da ngay fen ah d'accord signe la Euh, may jang sen culture tubaab bi boy wax ak moom di sëgg danaan fenkat nga da ngay sigi xol ko ni mu jakar la beut ak beut ngay wax muy xol sa gemign di xool euh, kii geste yi lépp day wax rek xam euh, ma na rëy euh bo bare ñama day fen man ah, lañ ma yeggal na ma fi na ma si nasaraan yi yàgg na na ma nasarani boy wax ak ñom da ngay jàkkaarloo ak ñom mais bo seugé rek dañ nan da ngay fen waaw ah, parce que ay signe kat la quoi signe kat wax di seug ni suñu nii kat fenkat kat la quoi waaw ah, body language exactement donc Sénégal ñun ñoko mëna défar mais dans la main goor japp ci goor ñu mettre la main ci pat bi remier ko ñun ñep ku nekk jàpp ne yaay yaay Sonko yaay Jomaay ku nekk jàpp ne yaay Sonko yaay PM yaay PR man loolu laa gëm man ay Sonko man sama jëmm ji Mollah Sonko Jomaay la ñoo nekk fii li Sonko bëgg ci réew mi laa ko bëgg ci réew mi fu mu ko bëgg a yeggale fa laa ko bëggee ni ko Jomaay bëggee noonu laa ko bëggee fu mu ko bëgg a yeggale noonu laa ko bëggee ma sama jëmm ji fii Sonko la fii la fii Moolaa la ñoo composé c'est le Sénégal loolu laa gëm donc ñun war nañ mën développer réew mi surtout ñoo xam ne nañ vraiment teg projet dañ góorgóorlu avancé loo ko réew mi dafa yomb avancé la Sénégal bokk na ci réew yu gën a yomb malheureusement nag benn lu jafe moo fi am booy jóg dañ lay gàllankoor téye tànk gars yi soxor di la sàkkal ay sikki sàkkal di di la sikkal di téye sa buggu bugguñu de te sa boo demee demal ñëpp xam nga fan la Sénégal di dajaloo fan la Sénégal lenn kese mooy dajale sénégalais laaj leen ma lan la loo xam ne sénégalais lay dajale équipe nationale <laughs> équipe nationale bu Sénégal gagné loolu rek laa gis muy dajale tous les sénégalais équipe nationale kese bu président sax buy liggéey am na ñuy soxor taxawee ne mais équipe nationale bu buy joué ñëppay taxaw bu amee victoire ñëpp ci ànd loolu rek mooy dajale sénégalais sénégalais lenn kese moo leen di dajale ci mbégte te loolu mooy euh, football match kese bu dee làmb sax ñëpp dajaloowul match équipe nationale kese. làmb sax duñ daje parce que kii Balla Gaye la kii Modou Lo la kii Eumeu Sène la et cetera et cetera football kese laa gis Sénégal moo leen di dajale bu jeexee rek jeex na ñu tasaarowaat rayante rayante football rek moo leen di dajale. kon Sénégal pour ñu xam ne Sénégal existe na il faut mu match am match amee rek ñëpp taxaw ñëpp am envie yàlla na Sénégal gagné kenn du ne yàlla bu mu gagné yàlla na gagné des fois nga gis koo xam ne sax newul ci terrain bi waa b bu ko dugal moom tànk bi kàjji tànk bi da ngay da ngay benn Sénégalais bu kàjji sax ba. kaju taabal wala da ay xam ne nekkul ci terrain ndax buggu bii bi rek kii rek ay doo po loolu rek moo dajale sénégalais yi sinon seen lu leen dese seen dund yëpp dañuy féewaloo football kese moo leen di dajale bu ñu paree féewaloo rayantewaat mais Sénégal war nañ mun a dajaloo ci lu bëri ci lu bëri war nañ cee mën a dajalu lan moo tax football kese moo ñu dajale mooy dajale sensation yi mooy dajale sentiment yi soxor dootu fa amati iñaan dootu fa amati ñun ñëppay bokk yéene ñun ñëppay bokk bëgg-bëgg ñun ñëppay bokk vision ñu ñëppay bokk lépp ñu koy bokk lan moo tax loolu yaa problème lan loolu dañ ko war a liggéey si ñun lu ñu war a développé ci ñun la loolu rek laa gis mooy dajale sénégalais toog naa dégg ma la société sénégalaise bi dama ko saa waay dama koy jàng dama koy jàng de sociologue yi <laughs> ñeew ma leen de dama ne société sénégalaise bi laa teg nii di ko peintre lu ma la ci wax daggal téye cent mille ans du changé cent mille ans loo xam ne nit yi doon ñu sax bàyyi xel parce que dañ ko màggaale yaroo ko lu ma ci dimbale mooy damaa génn xam nga mbir mun nga cee nekk lu la mu lu la lu la jege muur say bët boo nekkee Sénégal lu bëri doo ko xam doo ko gis parce que daf lay jege ba nga xam ni da nga cee da nga koo yeewoo màggaale ko juddoo ji donc doo jàpp ni c'est pas normal il faut nga génn am beneen vision extérieure pour mun a ah, ndekete lii ma nekkoon baaxut ndekete lii du dëgg ndekete lii commencer poser ay questions poser ay questions lu bëri loo xam ne dañ la ko doon gëmloo da ngay poser ko question commencé ñëw waaw waaw euh, xorom kenn du ko ñaan guddi waaw mbay guddi sa doo ne xorom saf ci ngay wax taxaw quoi waaw mais yéen lan moo tax man depuis bu may xale dama dégg ñu naan xorom kenn du ko ñaan guddi xorom kenn du ko wax saf cin maire yëpp ne mut paa yëpp ne ne di xool sa morom hmm. ah dañ ko fay fekk ko fay fekk maama ko indi woon maam du maam maam yi ay nit lañu woon Ayo yi mami gëm ekstra yi ay extraterrestre lañu lu ñu waxoon la maam yi kaamil lañ fekk yi ak ni ngeen amee fenkat nii non la maam yi bëriwul ay kat non la maam yi bëriwul ay kat yu mag yu toogoon di kàcc rek di rek wa bu bur bi bu waxe bala waxat ñenti at ki naan wa bur ci ben baat yi katch kasse maam yi ñu suñu société bi ñu mel non la maam yi ay katch lu léegi nag boo ko waxee jamono ji nag paa yi toog di xool maire yi toog di la xool nga posé leen benn question quoi waaw euh, xorom laa bëgg a xam lan moo tax ngeen koy wooyee saf mu guddi te kenn waru ko ñaan réponse zéro kenn du ko dama toog fekkal papa ak yi jaay xam-xam nga posé leen ko kenn du ko du wax kenn amu ci réponse waaye loolu lépp nag dañ ko créer quoi ay mythe créé xam nga jinne affaire yi ñàngal ko fekk du dara du dara Armstrong fëq kii bi booy dox ci lim bi mille huit mille neuf nga ñëw ñu lay mille neuf cent quarante cinq ñu naan la waajee teen nga naan waajee moom mi ngi dox ci lim bi kii gi bënne teen nga xam ne yaa problème moo gars di dox ci ligne di xotti géej gi di fa def ay tunnel tubaab bi xotti gi la manche xotti géej gi Paris de Paris à Londres ñu ñu def ko tunnel nga dem liir ñu ne mille huit mau waa ji mille ten cent ñu ne moom mi ngi mi ngi bëndu teen mi ngi bëndu de moom ma ngay bëndu teen ñee mille lañ gas tunnel ya ni 1800 lañ xar géej gi ñoom xar géej xar géej di fa jaarale eh, eh, lu ne wala ñun dañu war a góorgóorlu ci suñu bopp